teraanga yu bari ndax liggéey moo ñu boole woon ba addunay dox di dox ba mu jëgi làmb ba boole ma si parents yi kon maa ngi koy sant bu baax te tey nag borom yi ginnaaw la dajale si làmb ji kon vraiment ñu ngi koy félicité te boo ñëwee fii nga fekk fi ku mel ni booy ñaa bokk si parents yi moom tamit vraiment ñu koy remercier ñu ngi sant bu baax. làmb di def ci noo nooy dundee lamb fu mu toll nii jamono ji làmb njëreem noo koy gisee. waaw xam nga lamb kenn yaakaaru toon ne lamb ji toll nii mën naa am njaareem parce que bu njëkk ay lamb yu ndaw lañ fi doon tëgg mais boo gisee innovation yi nga xamante ne daam dugal na ko si lamb ñu koy wax Africa vraiment mënuñoo am lu da ko féliciter di ko encourager pour mu gën a persévérer gën a euh, jox exemple pour jeunes yi yeneen mën koo ñëpp ci julli bi ñu di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu waagal Ceerno sa sal bu maa ngi jullee di nuyu ñëpp di nuyu xalifa bi tey damaa ñu tuddee ma drapeau ma am ci mbégte am ci contentement xam nga parce que nit mbër yi bari nañu nit ba ciblé la tuddee la drapeau moo tax ma jóge Dakar ñëw nit doo ko xeebal bësam daal loolu moo tax ma ñëw man maa ngi dëkk fii Sambé noo gisee lambi njëriñ waaw maa ngi dëkk Sambé fii loolu moo ma bàyyi lépp ma jàpp ana sama mag Cheikh Niang mi nga xamante ni lu tax ma ñëw bi moom gën na cee jàpp loolu moo tax ma ñëw nuyu samay supporter nuyu samay mbokk noo dundee lambi njaarim fii lambi njaarim noo ko dundee waaw lamb neex na njaarim moom dañuy dund lamb xam nga dëkk cosaan la moo tax naa dañuy dundee lamb daal neex na ma trop sama turandoo tamit mooy bëre moom noiro may nu ñaanal jàmm rek le maire gagne incha allah di nuyu sama turandoo bu baax booy ñaar jërëjëf booy ñaar noo gisee lamb Bantamba lu muy def ci yow yaakaar naan doot mu ti waxaat waaw ah, Bantamba <laughs> sunu père Bécaye yow ngay Bécaye numéro 2 ak Modou Mbaye xam nga lépp benn la bëgg nañ baax. ah Modou sama doom la moom dafa baax vraiment ah. moom sama doom la. te ah, yow yaa ko toj. affaire yi lay jàppale. ma demee naa ne père Bécaye Bécaye may numéro 2 mi ngi toj jur weer. waaye kenn du yow yow yaa baax. non tawam ba léegi waaw am métti ngi dóor oh xale yi ay xale yi danoo ñemente dañu tolloo doole lii mooy làmb làmb dañuy xamante ni si bii dañuy tolloo doole waaw am na a Deme mu ngi arrière ba léegi waaye Sa Thiès mu ngi koy topp Ahmed dem jël na ko jën naat na ca jàpp na ci loxo bi génn na Ahmed dem dóor na Ahmed dóoraat na Sa dóor na Ahmed Deme oh waaye xale yaa ngi bëri jàppante na mu Sa Thiès jàpp na ko mu Ahmed Deme waay waaw dellu siwaat nanu Bécaye Diagne ba tey noo si combat moom mooy sama cameraman fii ci njéeréem moom Touba moom vraiment image am dafay dafay set c'est trop ah moom liggéey bi dafa rafet ah ñaari békaay bu nu nekkee ci làmb ah foofu leneen lay doon day saf am lu ne waaw ba tey noo ngi jàppante jàppante nanu jàppante nanu waaw Ahmed Dem moo ngi rasu Sa Thiès dafa mel na da koy jaay doole mais Ahmed Dem ba tey mi ngi défendre ah di ko xañ boppam am na fu la yegg dalay lay daan Ahmed Dem moo ngi duur Ahmed Dem moo ngi duur Sa Thiès oh. ndaamaan njool la ndaamaan njool Ahmed Dem cër jàpp mën na jàpp fu ne ma ngay jàpp ca suufu tànk ba waaye arbitre bii moom noonu lay taxawee ci làmm ah. waaw ba tey dara xewagul waa arbit mu taxaw sunu kanam waa ni muy arbitré moom dafa yéeme de Sa Thiès Ahmed ngi génn Sa Thiès moo ngi koy xëcc Sa Thiès moo ngi koy xëj lan la moo nar a am fii oh, Ahmed a ngi ni tekk di ko déglu jàpp na ci ngembuli bal loxo ba ca kaw Sa Thiès a ngi duur Sa Thiès takk na ko fu mu ko jëmee oh arbitre àtte na daan na ko jël bu waaye àtte na dañuy yëpp dañuy bëriwaat oh day Ahmed Deme jël na benn avertissement waaw ba léegi Sa Thiès jàpp na ko jàppante nañu jàppante nanu Sa Thiès ngi koy jaay doole oh Ahmed dem prise ba daanu na Ahmed li nga def dafa sori oh Ahmed fi nga bëgg a priser baaxul daan na la Sa Thiès daan na ko Sa Thiès na ko waa lamb la rek lamb la rek parce que booy bi dafa ŋaamu quoi dafa yàgg a topp fu nekk. dina dina la dóor dóor yi métti. moo kii bu arbitre soufflé ay secondes laa koy daan. ah loolu la wax. ay magam ay secondes laa leen ay ñoom Gris Bordeaux boo yooyu noonu. jërëjëf chaque fois laa leen daan ale. Noiro mag la. te Noiro ngi ci forme bu doy waar ah. de Noiro su ma ko jàppee mu jeex. du mag fan nga fan nga nii. maa ngi jugee Mbacke Bawol. ana say supporter. sama supporter. à chaque fois saa saa su ñëwee làmb combat am day fees waaw kooku mooy Boy Niang vraiment ah day def nu na ci làmb dafa bari supporter xale bi nañu ko jàppale nu ko bàyyi xel am na supporter ah vraiment xale bu am jom la nu ko bàyyi bu baax ay supporter am noonu. nag bi junior li mu takk ci gàllaaj bare na waaye nag bi junior góor yam moo ngi arrière ba léegi waaye nag bi junior mu mel na ni tey ndam rekk la gis. moo gën a am caaja dóoraat na nag bi siñoor dóor na góor yam méb na nag bi siñoor wàcc na noo ngi lewaatu ba léegi nag bi siñoor jël na tànk ba mu bañ góor yam dóor na góor yam dóor na nag jël nañ tànk ba nag bi siñoor daan nan la dalay daan oo oh, dalaa nax boo daanoo da ngay wéet waay Tidiane Ndour noo ngi jàkkaarloo noo ngi deme aboor dara xewagul noo ngi ni tekk di dégloonti ndeysaan gis nga photographe yooyu kenn du ñoom Tidiane Faye Tidiane méb waaye góor yan góor yam mu ngi ni tekk di ko déglu ñoo ngi lewaatoo ba léegi Tidiane Faye moo takk sol ngembu Lagos bi moom la ngemboo waaye góor ya moos takk ngembu bu ñuul bi am lu weex waaye noo ngi ni tekk di dégloon te ba léegi Tidiane dóor na jël na tànk ba daan la dalay daan oh jël ba rafet na daan la jël bu sama yaram daw na oh waay waay xale yi mën nañu bëre waay moo daan vraiment xale njarim a ah, sir na mooy def na li ñu war a def quoi liggéey nañ war a liggéey ah, macha allah instant bi moom ndam dañ ko am incha allah préparé nañ lu lu rëy yaa indi ban mbër man maa di noiro seras arbitre soufflé waat na delluwaat nanu noiro ngi dox ci kawam booy ñaa ngi dóor jël na ko jël na ko booy ñaa jël na ko noiro bal na loxo yi noiro ngi koy faaxat waa ba tey booy ñaa ngi rasu boo noiro ngi dóor ci bopp bi gemb laa ngi tas waay waay xale yi tolloo nanu doole lool lamb tey nii la tëddee njaarem journée africa a ah, moom saa su wootee làmb ah làmbam dafay neex noiro ngi dóor ba léegi noiro ngi dóor jël nan tànk ba daan na la booy ñaa daan lay la xay lala oh xale bi daan na la jël bu rëy doo lay daan no oh! waay ngi noonu booy ñaawa ne mën na boppam comment lu ñu ko bëre tooga say tànk takk moom lay bëre soo jàppatee jël sa loxo nga dugal ko si suuf comprendre nga su déclenché nga xar fu mu ne am ngaa xar tegoo ko sooy mu tëdd maa ngi sant nag waa. di leen ñaanal daal ñoo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal barke yonent bi. kaa yow foo jëm ak làmb yow li nga tëggee làmb ji làmb mel nii te saa su ne yaa ngi def nii làmb. waaw xam nga rek ñun ay tuutànk lañ nekk ay mbër di bëree kon làmbu njaareem man fii laay fii laa nekk di bëree daaw tournoi nag yu fi jaar bëree naa fi ñun ñoo ko jëloon man aw ma combat ma ne pourquoi pas man du ma wàcc terrain bi. di organiser ay journée comme ñëpp jàpp si làmb ji ndax làmb jaare ñun ñoo ko mën a jàppale balaa keneen di jógee fële di ñu ko defaral ñun ñun ñun ñu nekk fii ñu jóor si loxo jàpp si. Africa gis naa ni promoteur manu la ah foo jëm tey Dakar moo noo bëgg a def ak Dakar ak làmb. waaw bëgg a suqali làmb njaaram rek incha allah dañuy dégg si kaw bu baax a baax ñu ni ñuy déggee ñoom Nicolas ñoom Gasson su neexaal dañuy déggee foofu dañuy jël ay champion di leen indi fii di leen boole ak mbëri nekk fii nii léegi mbëri daal danoo dugg ci lamb daal di tëgg làmb waaw xam nga rek di góorgóorlu rek nekk ay jeune rek di liggéey di góorgóorlu waaw mbër mook ñooyeem rek waar la liggéey la rek mbër mbër ku bàyyi làmb dekkal làmb bàyyuma làmb nag moom damay bëree en même temps suñ ma joxee combat damay bëree na samay morom jël samay jël samay avance ma wan leen lu ma mënee noo yow promoteur noo tegal foofu sa tànk mbëri bare noonu waaye ni ngay def làmb dafa yéeme ah waaw xam nga rek dëkk ci dëkk bi rek bëgg a jàppale dëkk bi rek bëgg a jàppale jeunesse dëkk bi loolu kese la quoi. man su ma la gisulee ci làmb njëriñ làmb doot mu xam lu muy saf fii. waa incha allah day baax yow Bécaye borom baax a di di di gërëm nag waa Ndiarème di gërëm waa Ndiarème bu baax a baax di gërëm sama doomu ndey la sama grand la sama parrain monsieur Abdou Ndiaye. def mbokk yi kon loolu lañ andi woon ci Ndiarème Bécaye Diagne yaakaar naa ni image yaa ngi noonu noonu luñ ko wane bokk yi kon loolu moo doon Bantamba la 2STV